mu nekk lu askan wi du ñaawlu te mën leen jural ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ak nekkin Ousmane Sy ak Pape Diop nekk ay citoyens yu ñu ràññee ci wàllum environnement ak régulation de circulation Ami Gueye Cissé du ñu xamale ak ñoom ñu ko doon sargal moom maire bu Hann bel ginnaaw ba ñu ko tabee meilleur maire du Sénégal ñeel prix ràññee loolu nag ñu nga ko doon amalee ca mairie ba aljuma bi ñu weesu ñu nemmeeku fa woon mbooloo mu takku ku ci mel ni imaam yi notable yi chef ak délégué de quartier yi association yi artistes yi ba ci sax waa jàngu bi maanaam waa église bi askan wi yeewu foofu ci Hann Bel-Air itam teewe woon nañu ko ginnaaw loolu nag moo ngi xamle ni bile trophée dara mayu leen ko lu dul liggéey rawatina ci wàllum éducation ak santé lii ku ne bëggoon nga ko am lii ku foofu ma leeral ci ndaxte dama romb ñu am saaku suuf cere ju ñu romb rek am luñ ci wotal dañuy naxante nag boo leen rombee dañuy mel ni ko amee laalo waaye du laalo loolu suuf la moo tax ma bëgg mu leer

ci arrondissement bi ñu am bi ëmb 39 écoles an belair air moo ciy nekk B résultat yaa ngi fii statistique yaa ngi fii dégg ngeen ki nga xam ne mooy inspecteur de l' éducation et de la formation mu wax ko dama bëgg ñu xam ne que résultat yi buñ ko defee dañoo organiser forum éducation keroog bañ koy organiser directeur d' école yëpp ña ko parents d'élèves seen association ñu nga fowoon teew jàngalekat yi ña nga fowoon gouvernement scolaire ña nga ca woon képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci école fii nañu tëju pendant deux jours di réfléchir naka nañu war a saafara école pour mën a yóbbu résultat fii ku ne xam na ne école Bara Gaye ak école Montagne daa nañu dépassé vingt cinq pour mais tey bu ñu leen ne montagne dem na ba nekk première école arrondissement bi ci 39 écoles nga xam ne am na lu ñu ci def centre de santé Anne sur Mer gis ngeen ay at ci gannaaw difficulté ñu mu amoon parce que dafa doon centre boo xamante ne bu bees la woon ñu defoon fa équipement yoo xamante ne bu demee ba amul ci dafay laaj ñu investir renouveler looloo tax ngeen gis investissement bu am solo bi nga xam ne def nañ ko boo demee ci centre ba tey gis ngeen li ëpp solo ci centre muy laboratoire rééquipé nañ Le muy rajo numérique rééquipé nañ ko Chaises dentaires, personnel surtout dama naan personnel compétent bi nga baie de Hann si lu ñu seetlu li ko dalee hann sur ba Hann Montagne daanaka jafe na romb benn kër wala ñaari kër te doo gis ab tuyau de canalisation yu ay boroom kër génnee jëmale ko ci géeju yaraax bi mu nekk lu askan wi di ñaawlu. du yoon du yoon yoon yoon tey jii ñun dañu waroon dem service d'hygiène ñu arrêté leen ci nu mu gën gaawee parce que y a pas mal lii ngay wax man teg naa ci sama bët ñu ngi ciy wax nag te ñu ngi ciy dox guddi yi ñu toll. problème bi ñu gën am ci wàllu tuyau yooyu ñuy génn bi ci gën a rëy mooy canal 6 euh, fan yi ñun suñu problème mooy loolu li gën a impacté bee bi canal 6 si la bokk ak yeneen canal yu mel ni moom boo ko jàpp fii ba euh, Sotiba yu mel noonu ci la bokk donc bu ñuy wax impact aussi yi nga xam ne dañ ko def ci baie de Hann bi tuyau yi ci la bokk te kenn defu ko muy les riverains ñi dëkk ci booru géej ñoom ñoo koy def li nga wax man en tant que président conseil de quartier maa ci te neexuma neexul waa dëkk bi te incha allah bokk na ci li ñuy xeex. borom kër yi ñu defal seen kër ba mu rafet ñu bënn foos bi utal ko benn égar bu ndaw muy wala ngaan jëm tefes mu loolu baaxul ci ñun feebar lay indi ci ñun te ñun luy defar rek dañu bëgg te gis nañu sax léegi dañuy defar. ñu dëkk ci dëkk bi

donc li pluie day dañ parce que bo gisee euh, regad yi ci buntu kër yi c'est pour lool xëy tardement bi rek motax tax mais lii euh, buñ ko waxoon aussi ak maire ñomit ñoom duñ ci mën daal xëy na mooy jël ben mesure sévère ba nga xamanteni ni dañ leen dem kalaami service d'hygiène ñëw jappalé maire dëkk bi bu wër chef de quartier dëkk bu ci nekk fal na la chef de quartier bu fa nekk chef de quartier bu ci nekk na xool koñam la nga xamné jaadul jaaduwul na ñëw wax ak ñom ñu fatte booru tefes gépp ñu fatt douche yi fay nga ñepp ñu fatt ñun dal loolu ñu ñaan monsieur le maire babacar mbeng dimbali ñu babacar mbeng yara mu ngi yaaxu ci kaw kër yi nekk booru geej ñepp dañoo bënn seeni foos muy nga ca ko tefes loolu dal la ngay ñaan yow babacar mbeng nga dimbali ñu ci Mbacke sek di activiste ci walum environnement yag xex ci pollution de an bi ardu na ci te andi ay ci bile phénomène loolu phénomène bu bess la connecté seen force ak ay tuyaux yu nga day dem géej boo xoolee ci globalement ci baie de mën nga sax jéggi yara dem ba quartier yi nga xamni ni ñoom ñoo fété au nord de yara muy Castor muy HLM muy anne Maristes muy Dalifort Cité Soleil quartier yoy nga xamni sen ndox aussi da fay jaar ci canalisation yi seen ndoxu foos seen eau usée ñëw ci baie de Hann bi c'est un phénomène bu nga xam ne ñun ñëpp dañ ko war a dénoncer parce que baie de Hann bi li ko yàq mooy la qualité de ses eaux ndox bi soo ko analyser diñ ci fekk ay coliformes fécaux muy xeetu meññanteef ak feebar yu jóge ci gannaaw kër diñ ci fekk xeetu métaux yu bëree bari diñ ci fekk ay polluants yu bëree bëri te loolu jógewul ci kër yi rek donc l'eau quartier yi au nord de la baie de directement à travers les canalisations d'eau usée ou commencé directement directement lignes de force au niveau de la mer ñaar avons fait un ci de Nous la code de l'environnement dans ses dispositions relatives à la pollution des eaux entre les articles 30 et 36 et même 39 il ko condamné le code de l'hygiène dans plusieurs de ses dispositions dafa nous

ba feebar yooyu nga xamni day jóge ci pollution ak salte ak tilim yépp mu jóge fi loolu moo war waru daram mais munu ci tapalé munu ko jéem def munul faire semblant parce que c'est des problèmes très sérieux qui dépassent son budget donc c'est euh, ce suma xalat ci mbir mais il faut qu'on interpelle l'État du Sénégal qui dans la Constitution parle d'un d'un droit à un environnement sain c'est l'article 7

kenn bañ a nekk spectateur ñëpp nekk ñu nekk ñaar ñu yëngatu ci benn combat waaye nag kenn ki nekk ci wàllum environnement ak cadre de vie ka ca moom ci wàllum régulateur circulation ñu gën leen xam ci turu Mamadou Sy ak Pape Diop. bés bu jot même heure yaa ngi koy sénti circulation bi foofu ci entrée Mariste mu sedd wala mu tàng moom Mamadou si nekk ku am taxawaay foo ko fekk kase bi mu ngi ci bopp bi ak gilet bu vert bi nga xamante ne ci la ko ñëpp ràññee. di jëm régler circulation bi fu mu toll malgré jafé jafé yi mu àndal ginnaaw ba dem beeg dëkk bi taga témbee ginnaw ba fa centre contrôle technique ubé ba légui liko dalé dalee Mariste jàpp an Bel-Air Amadou si ben sénégalais la bu nek fi ci réew mi koo xam ne dafa am ben xalaat bu mu gëm bon doon ko def ba yalla def ma dem ba tay sénégalais yi dem ba xamné ma ba ràññee ma ci bon l'an 2000 parce que man bon mun naa wax ne marsa ambulant laa doon def l'an 2000 yàlla def ba am benn jour fekk benn vendredi maa ngi toogoon di noppaleku benn camion paan foofu ba bi camion bi paanee foofu ca nekk foon eh, ma ne ah xaaral ma ñeem leen a dimbali bi ma taxawee foofu yàlla def ma nekk ci di dimbali oto yi di leen dimbali ba yàlla def affaire bi sotti daal ma def presque def naa ko ay deux heures de temps bi yàlla defee affaire bi sotti nag ma ma dem ñibbi toog mu mel ni daal dama ci am benn inspiration ci benen walu ba ki di pap job mom danaka len rek moko soxal say bu xeye keur yi nek ci wuti tefes gi dina len séddale ay sachet ba nopi di dajale mbaleen mi ngir auto bi mën ko fa jëlee te fu mu tollu mom pap job day defar ak cassette setal li di béeda an ngir xar kana mën Jombang mình à? ờ, cái 한번 좀 이거 좀 봐. 그래서 국민 맹거 뭐 있어야 그대로 비싸. 그게 그거는 어 마마 간다. 사먹고 자. 사먹고 자야. 만 pesher. Comprendre. Pesher là man aw ma ben amu bu dul geej. Bon, acteur là, je te pèse acteur là. actor là. ci loolu moo nekk sama jaar-jaar xamante ne bii bu ndaw comme indi foo leen fekk ñoom ñaar ñoo ngi seen liggéey naam sax amuñu ci dara ndax kenn fayu leen mu nekk loo xam ne dañ koy def ngir joxe exemple bu baax waaye itam participer ci seen développement réew mu nekk engagement bu mucc ayib waral ñu nekk ñu nit ñi naw te sopp leen ak ay royukaay ak itam ñu jara bàyyi xel. fii laa am te fii laay dundee fii laay noyyee li may jël ma ne naa ko xëcc defar ko yemook tamit paa yi fii buñ daan toog dañu am problème waaye tamit gën ma encouragé ci loolu ma commencé man ak boy yi xam nga ñu ciy def def lu nekk dégg nañ ko fi benn instant bi muy bi muy di commande léegi ñuy dem dem dem ba mu ñu dégg dégg nañ ko mais bref léegi noonu bi ñu kiyee noonu ñu ñëw ba commencé di gagné léegi lii ñu ne waaye lii de buñ ko amee bu baax daa yëpp nag gën a mel ne moo dañ leen sarse ñu ne noonu lii dañuy dem ba mbëkk montagne montagne fële ci kaw waaw te li ci gën a neex hmm, ñoom dañ koy def ñu yaakaar ne ñu ngi leen ciy jox lu dul jeex ak ferte program waaye ñooñu attaque te fii bi attaque du fi manqué mais toujours bu jot ñi fi nekk ñëpp ay responsable lañ ñi fi nekk ñëpp ay responsable bu la añ fekkee fii fii bu su nekk sa sa waa kër da indi añ fekk fii xam yaa ngi si waaw ñu añ naan ataaya naay amul kenn koo xam ne nit ñëw na sa kër di la laaj te neew ñu dama tefes kon dafay neex ñu ko nekk du kenn mag ñi ñëpp nag dëkk bi ñëpp rafetlu nañ ko kenn ñaawloo ko vraiment ay jabar lañ la ñuy jàpp. def naa yaraax 3 ans pompier def naa fa 3 ans kappa def naa fa 3 ans ça fait 9 ans avant may ñëw fii Anne Maris an Maris nak fi la nekk ba tey bon bi ma koy def aussi yàlla def na fi ma egg tey xalaatuma ko woon parce que tey boobu temps metti woon na parce que comme sénégalais ñoom xamuñu woon lii xamuñu woon ne civil war na mën a def dara war na def circulation. bon ma ne lii daal dinaa ko def pour won sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp réew mi lu caagi ne man gëm naa réew gëm naa réew bëgg naa sama réew mais bëgg naa sama réew da ngay def dara pour sa réew li nga xam li nga mën lu tuuti li ngay def nga def ko moo gën li si des yàlla moom yàgg-yàgg lu waaye def ci lu baax yàlla dina la fay donc man loolu laa gëm ma di ko def ma di ko def am naa ci ay difficulté am naa ci ay jafe-jafe oto fiir na ma ci sama loxo dam yooyu yëpp am naa ko ci mais terewul musuma musuma xaddi mësuma découragé. mom Mamadou si engagement bu am solo bi mu doon def te ken fay ko ci dem ba njiitu réew mi ko ci fonction publique lu nu mel nak dara waralu ko lu du doon defal réewam te xaaru si dara lu tollu si ñaar fukki at naam sax père de famille la. kii di pap Diop nak ba légui ken reconnaître ko teg amul nimbalu autorité locale yi. di len jaajëfal mbokk internet yi si teewlu bi di len jox dig dajé dimanche prochain suñu beneen journal de la semaine.